assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk taalibe yi noo ngi fii tey ci kër jàmbaar ju kenn dul fàttee di Cheikh Abdoulaye Lahat toog ak doomam ju baax ji di sëriñ Sidi Mbakkeem Cheikh Abdou Lahat yàlla na fi yàgg Mbakke te wér mu jël ndigal ca magam ju baax ja Cheikh Mouhamadul Muntaxa Xaadim Rasul yàlla na fi yàgg te wér ku xool appel bii nag xool sëriñ sii di tubaarkalla ak rakam yi mbakke rafet na ba noppi yàlla nañ ci yegg rek ak jàmm bisu jàmbaar jooju nag kenn du ko fàttee kooku mooy kan mooy Cheikh Abdoulaye Laat yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaye Laat bibliothèque bi Cheikh Abdoulaye Laat wataroute bi Cheikh Abdoulaye Laat daari kaami Cheikh Abdoulaye Laat boo génnee ci pencum Serigne Touba jàkkaarloog jëfi Cheikh Abdoulaye Laat ba nii tukki yàlla na ko yàlla fayal ak Serigne Touba le 27 la di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori ren fédération bi nga xam ni mooy fédération Cheikh Abdou Lahad na ci juddu na le 29 lañ koy màggal ca Pentiwigo sëñ Xaadim Mbay ak yéen ña fa nekk ñëpp sëriñ Moussa Mbakke moom sëriñ Ciidi moom Cheikh Abdou Lahad moom moo fay ñëw ci boppam. ren it incha allah bi bu neexee yàlla Angleterre xam ngeen ni ñu ngi koy waaj ci sëriñ Muntaxaam sëriñ Moustapha mii toog moom Cheikh Abdou Lahad. ànd koog taalibe yi bu ñu jàppee bis bi daañu leen ko wax doomi donga yi yi nga xam ni seen bàyyi sosoo ci daara Cheikh Abdou Lahad doomi donga yi ñoom ñoom itam ñoo waaj bisu Cheikh Abdou Lahad la 24 la 27 nag mooy màggaluk Cheikh Abdou Lahad la nag ci yoonu murit kenn du ko fàtte bis baa ngi noonu mooy bisu jàmbaar ji nga xam ni lislaam jëmu ko Sénégal yëbu ko ku mu jur bàyyi na la xel waaye li baax di baax baax dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rap du raaf du réer sëriñ Sidi yàlla na nga fi yàgg te wér te am ngërëmal sëñ Bamba sa maam. sëriñ Abdou Lahad nag ku koy fàttaliku yii rek nga koy fàttaliku ci jikkoom wala bëgg-bëggam yooyu nag yii rek la alquran moo doon bëgg-bëggam moo doon jikkoom moom la daan doxee di ko waxee la ca tege hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci tegawaat xasida yi sëriñ Touba yi leneen la cay tege mooy bëgg nga sëriñ Touba ak taalibe ga la ca des mooy bernde moo tax tey jii kon ñu ñëw fii di leen fàttali bis bi bëgg ngeen jàpp ko yéen ñëpp te fas ko yéene te sàkku ci la ngeen bëgg ndax la ca waay defkat yàllaa la koy fayal boppam ndax sëñ Abdou lu ko waay defal sëñ Touba lay fay te sëñ Touba moomee ku muy fay yàlla la lay booleel. mi ngi koy yëgal xalifa yi waa kër sëñ Touba yi ñi nga xam ne sëriñ Touba jur seen baay ak ñi mu jur seen day di ko yëgal xalifa yi nekk ci réew mi yu tijaan yi wala xaadir wala laayeen wala ñeeseen wala bu mu mën a doon yépp ku ci di jullit rek sëriñ baa ngi la koy yëgal gannaaw bu loolu wéet mi ngi koy yëgal njiital réew mi mu président de la république Macky Sall di koy yëgal secrétaire général am ak jëwriñ yi aju ci moom muy bu Boun Abdallah jonn ak ministre yi aju ci moom sëñ baa ngi koy yëgal ñëpp ak pouvoir législatif bi ak pouvoir judiciaire bi kon lépp matale na sëriñ bi bàyyiwul kenn mi ngi koy yëgal ñëpp ñi nga xam ne ñooy jàngalekat alxuraan yi wàllu njàng mi ñu yokkaat ko bu baax waaye bala maa wax ci loolu dama leen di sant ndax daaw buñ ko waxee jaarale ko ci tund suñu wëlëre di suñu xarit sëriñ Mamor Mbacke jàng nañ ci ay kaamil yoo xam ne kawe na jot waaye nag loolee ca boppam ñu ngi leen ciy sant bala ñoo wax ni dinañ ñaanaat ren nañ ko defee woon daaw ñu fexe ba defuwaat ko ren nu raw loola ñu ngi ñaan jàngalekati alxuraan yëpp ñu jege ak ñu sari ñëpp ñu jàng ci ay kaamil ndax suñ boromam alxuraan rek la bëggoon alxuraan tam àggoon na ko foo xam ni kawe na njort ndax jaraloon na ko lu ne kon nag bis bii su ñëwee ñu jàng ko ci alxuraan dafa naa njort ne xolam dana sedd kon nag maa ngi ñaanaat jàngalekati alxuraan yëpp kenn ku ne loo mën ci ay kaamil rek nga def ko ci. suñuy wax nag dañ koy joyal ci taalibe yi féete bitim réew ci soññi leen ak leeral leen sëriñ bi jox na ndigal fépp foo xam ne si ne ña fa doon màggal màggal gi wala tàmbaliwuñ wuñ ko woon ñu tàmbali ko muy fépp fu fi këru sëriñ Touba nekk wala daayira sëriñ Touba nekk fa jox na la ndigal na ngeen ko doon defee ngeen yeesal loola ngeen yeesal loola di ko di ko ne defee am na nag xeeti réew yoo xam ne dañ leen ci gën a beral muy fi demee nekk Italie ndax dafa bokkoon ci barab yi nga xam ñoo njëkk a sos màggal gi bi màggal gi amee rek ñun dañ ko àndoon ak ñoom mm-hmm. loolee nag la sëñ bi gën a fedd di ko dëgëral ñuy wax ñoom ne diggante le 29 30 moo leen gën a jubu e, e, ñu jàpp jàpp waxtu bu ko caa màggal loolu nag yëmul ci ñoom mën nañu wax ne Europe Europe gi yëpp la ba ci Amérique kon sëriñ bi nangul na leen loola fépp fi nekk te bitim réew diggante le 9 euh, ba la 30 muy wekken bi mujj ci ci ci weer wi nangul na la nga màggal fa euh, bis bi ni ngeen ko doon ni ngeen ko doon màggale kon fu fi taalibe yi nekk nañ ko baaxoo def loolu du leen mat a wax mooy bernde yu day sëkk ak alxuraan yu mat sëkk ak xasida yu yu day sëkk xasida ak alxuraan nag dafay cëru euh, Cheikh Abdou Lahad mhm. ndaxte tey jii ku gis fee muy noppaloo ak la ko fa wër danga xam ne lu mu jëf la fu ñu tuddee alxuraan ñëpp xam ne kenn la ci woon ah loola kon képp ku koy màggal loolu moo war a jiitu ca na nga koy na koy màggale ak xasida yi gis nañ lim ci liggéey bañ na ko ba dafa wutoon ay machines yu koy muul ngir ngir mu bëgg a tas ba kenn ko deman caa jot woote bi ñu ngi koy joyal ci ñi nga xam ne suñu borom da na wax ni fa asbaxtum bi niamati ixwaana te ñooy suñu mbokki jullit yi di ko jooyee tamit ci suñu mbokki taalibe murit yi yi nga xam ne sëñ bi da daa wax ni yéen yéen waa kër gi ngir taxawaay bu rafet rawatina nag suñu mbokki bopp yi nga xam ne ñun ñooy ñoom ñoom ñooy ñun te ñetti xeeti bokk yi ma lim yëpp it liñ bokk dañu ko mënta séddoo te sëñ Abdou Lahad dafa daa wax ne ay bokk ay nit ay nit bu ñu àndee lu ñu mënta séddoo dañuy rafetal àndin wa tey wax ne ñoom ñoo ñu nag euh, la weesu lépp rafet na te jot nañ liy ñëw mooy gën a rafet kon seen biso ngoog ñi ngi ñaan nag sëñ bi ñaanal ñu fekk ñu teewe ko ak jàmm ak salaam te mbooleem luñ ci dagaan wala ñu jëf ko suñu borom boole ki liggéey ñu gën nangu di wax ci turu setti sëñ Abdou Lahad yëpp ngir waajal màggalu sëñ Abdou Lahad bi li nga xam ne mooy doon lawen set set yi dinañ ci am conférence buñ ci taxawal doon talaata ñaar fukki fan ak juróom lawen cinq ñi ngi ciy woo mbooleem daayira yëpp mbooleem njabootuk sëñ Tuubaa gépp mbooleem seex si mbooleem taalib yëpp ñu ngi leen ciy woo ren ñu tuddee ko sëñ Abdou Samad Mbacke moom Cheikhul Khadim ñu ngi ciy woo ñëpp gannaaw loolu itam daayira turandooy Cheikh Abdoul Ahad yi sëñ Abdoul Ahad Diop moom sëñ Thierno Diop jiite ko ñu ngi xamal ne fédération boobu taxaw na ku ci bëgg am ak leeral nga jokkoo ci ak sëñ Abdoul Ahad Diop moom sëñ Thierno Diop gannaaw loolu itam bisu bi nga xam mooy bisu màggal gi buñ demee ba cérémonie ba jeex daayira yi nga xam ne ñooy dongay tërbiye Cheikh Abdoul Ahad yi danañu continuer dundal guddi gi ci alquran ak xasida mm-hmm. ba guddi gi jeex ñu ngi ciy woo ñëpp yi donga itam altine la 24 danañ ci def am ngontum xasida lépp ngir waajale ko bisub Cheikh Abdoul Ahad bi ndax léppam day alquran ak xasida mm-hmm. ñi ngi ñaan képp ku ci teew la sëriñ bi waxoon ne damaa am ci moom yaakaar képp ku ci teew yàlla bu sa yaakaar tas sëriñ bi ñu ngi yëkkati kàddu ci turu mbooleem koo xam ne Cheikh Abdoul Ahad la sa waajur tudde woon wala sa maam bis bi nag bu agsee bis boo xam ne moom lañ moom mañ la tudde lam la njëkk a warul mooy boo dee dem àjjana kooku kenn mënu koo fay lii nag moo tax li kóllëre la kóllëre nag suñu borom moom moo am lu ci dëele am lu mu ci ko bu ngeen wóolalanteeg nitu yàlla wala lu jëpp ci suñu borom na ngeen ko mottali ku ko fecc yaa def sa bopp kon nag kóllëre gàngoog kuy mbokk sëñ bu jokkoon na la ba nga xam ne desalu la dara kuy wëlëre mataloon na kóllëre ba nga xam ne desalu la dara kuy taalib Sëñ Tuubaa wàccoo naa ak yow ndax wane wutoon boppam doomi Sëñ Tuubaa la tegoon fi kanam ak wan leen Sëñ Tuubaa bari na ko jëriñ ci yoon yoo xam ne wane waneb Sëñ Blaat moo la ci jëriñ le 27 lay tombeel ci weer wii di weeru tubaab ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori wi di bisu sunu jàmbaar ji kenn dul fàttee bisu Cheikh Abdoul Ahad nag mairie Sénégal yëpp Cheikh Abdoul Ahad Ka woo na leen ndax mooy maire Touba moom la ñu fayee moom it Cheikh Abdoul Ahad kon kuy maire wala ngay commerçant wala ngay transporteur Cheikh Abdoul Ahad Ka woo na la ci bis bi ndax Cheikh Abdoul Ahad réclame moom la Cheikh Abdou Khadir waxoon ni nit ku ne mënees na ko denc ci jëfam nañ ko denc daare kaamil bi ñu dencee ba noppi mu ni Cheikh Abdou Lahad dëkk naag alxuraan faaw kon bisu Cheikh Abdou Lahad bisu alxuraan la bisu xasida la bis baa ngoog la 27 la la set taarix la ci yoonu murit di bisu Cheikh Abdou Lahad kenn du ko fatte ku ñëw Cheikh Abdou Lahad fat la ku mu fat doo fanaan biti na ñëpp ñëw Touba awsi bi rabbiya wa wal wahidul ahadu منا لعينك فني سر من جهاد